ñettu ponk bi mooy arti artifice politico judiciaire yi nga xamante ni Macky Sall mu ngi ko teg mu dëgg sërëx à travers des articles du code électoral L9 L30 ak L57 bi nga xamante ni permettre ko mu écarte ay candidats et tey jii gis ngeen avec Ousmane Sonko aussi artifice yooyu la nekk di utiliser pour l'arté du jeu démocratique Euh, ku mu bañ a dem élection que artifice yu ñu dindi ko ci li mu gën a gaaw ñu modifier ces dispositions la pour que ñu dem ci ay élection yi nga xamante ni Macky Sall du galgal benn candidat ñi war a bokk yépp ñu bokk et pour terminer aussi wax nañ ci mbirum parenage bi ñëpp gis nañu dans l'esprit je pense que la plupart Sénégalais étaient d'accord mais ci niñ ko tegee baaxul parce que y a du nébuleux acteurs yi tooguñ ñu waxtaan ci les dispositions de mise en œuvre du parrainage que ñu xoolaat ko et enfin dans le prolongement de tout ça mooy qu'on aille vers des élections yi nga xamante ni day doon des élections libre et transparentes bu Macky Sall dul bokk mais que du galgal kenn loolu moo tax a jóg f ñu woote nag ndaje mu am solo muy le premier acte d'un plan d'action bi nga xamante ni ficelé nañ ko ba pare dinañ ci ñëw ci ay jamono waaye nañu xam ni tey mooy bës bu njëkk bi te muy bés bu rëy ci suñu démocratie ci suñu histoire parce que c'est le début de quelque chose et le début de quelque chose de grand citoyens yëpp à travers le f dañu woote tey vendredi 12 mai 2023 à 15 heures de place de la nation pour rassemblement bu mag bu historique pour won à la et au monde entier que le peuple sénégalais dans son écrasante majorité nangu la àndul ak Macky Sall ci yii mu nekk di def ci réew mi